ITFA institute al madina travel salum jidda sen ak tarixa tijaniya america si njiital suñu imam Mouhamed Muntaha Sakho ñoo leen di may émission bu mag bii di seen duna manin bi nawali shujaun fi ixtiyaadin واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر جليننجي أبو ذر رضي الله عنه يالنا يال جرمكم قال من قال للنبي صلى الله عليه وسلم yonentu dal na yàlla saxal xéewalam ak muccam ci moom wax na ma laa taxqiranna bul xeeb mukk mukk nunu tawkiit saqiila la laa taxqiranna bul xeeb mukk mukk min almaarufi ci mbaax min almaarufi ci luñ xam min almaarufi ci njëkk minal maarufi ci teraanga minal maarufi ci jëf ju baax chey an dara walaw an talqaa donte amoo lu dul nga dajeeg axaaka sa mbokk bi wajhin ak kanam taliqin gay aju boyu taliqin gay aji rafet taliqin gay aji muuñ taliqin gay aji ubbeku su amoo lu xool sa mbokk dajeeg moom ubbil ko sa kanam dugal ga ngay dugal mbégte ci xolam ci ubbi gi nga ko ubbil sa kanam bu dee lool rekk rekk nga am bu ko xeeb def ko maanaam loo mën ci njëkk bu mu koo xeeb bu ko xaar defal li nga mën yépp joxe li nga am yépp te mën koo joxe su dee ne amuloo loo joxe lu dul ne kanam nga mën a ubbi bul xeeb loolu ndax loolu mooy buntu yiw yëpp rawaahu muslim xadis jaan ci muslim yal nañu yàlla may yàlla yaa rabbi may ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ñu jikkoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi